ci yàlla rawat na ci ay mbindeefam rawat na xalaat boo xam ne buñ nose la bu jaar fi mu war a jaar ndax xalaat dañoo war a xam ne jëf la jëfi xol la te xalaat day tàmbalee ci li leer jëm ca di tàmbalee ci li jege jëm ci li sori mooy tax mu am ay natiija yu baax am na benn nitu yàlla boo xam ne nam daan yaree ay taalibeem guddi daf daan toog ak ñoom di leen waar di leen waxtaanal ci yàlla di leen waxtaanal ci yàlla ba seeni xol tooy mu ànd ak ñoom dem ca biir jàkk ja buñ demee dañuy fay làmp yi kenn du julli kenn du yóbbu kurus kenn du yóbbu ab téere kenn ku nekk da ngay toog ci sa ruq di teewlu di xalaat yàlla kenn du wax kenn lenn balañ fa nekk diir bu yàgg am da dégg ñuy jooy jooy yu métti am ñuy daanu yuuxu ba dootuñu xaj ci jàkk ja ngir lan ña ngay ña ngay yéeg ña dundal seen xol ak seen xel ci péye yàlla yi subhaanahu wa taala gannaaw boo xamee ne jiital na jiitu mooy fàttali leen yàlla ndax nit ki la muy dégg ci làmmiñam la fees ci ay bëtam fu mu tourné gis ko la muy tudd ci làmmiñam dëgg-dëgg xalaatam foofu lay jëm moo tax balaa muy yittewoo xalaat dëgg-dëgg na fekk tooyal na xolam jubbanti na ay yëg yëg yëgam yëpp jëmee ko ci borom bi subhaanahu wa taala mooy tax xalaat bi doon lu koy jariñ doon lu koy xamal yàlla sëriñ bi wax ne axbaru bi fikri wa axbaru bi fawqi fikri saa ibadata sanati laazim taa lenn ci nit yàlla yi xabaar nañ ne toog benn waxtu di teewlu di xalaat màggug yàlla di xalaat ci mbindeefi yàlla yi ak kéemtaanam yi loolu danga ci jële loo xam ne mënoo koo jële ci jaamu yàlla goo jaamu yàlla fukki weer ak ñaar muy at mu mat xabaar nañ ne euh, xalaat ci kéemtaani yàlla yi benn waxtu moo kaw jaamu yàlla at mu mat xamal ñu ne xalaat bi ab seetu la seetu la boo xam dana la may yow jullit bi jamono ju ne nga mën a xool sa bopp mën a natt sa bopp saw doxin lu ci jub nga sant yàlla te fas yéene yokk mu gën a gaaw lu ci dëng nga mën koo jubbanti teg ko ci yoon moo tax mu ne waalam waalam bi anna al fikrata miraatu liman amana birrahmani jalla xaysu an id fikratul fata asanaat mustaturihi nee na xalaat ci yàlla te bu ñu waxee xalaat yàlla nga bàyyi xel jamono ci ne mooy xalaat ci mbindeefam yi ci kéemtaanam yi di ci waaru ak di ci xamee loolu seetu la ci koo xam ne ku gëm yàlla subhaanahu wa taala la seetu la boo xam ne dana ko wan lu ko sori woon lu ay bëti neenam mënutoon a gis dana ko gis ci ay bëti xolam mu wax ne toog gi ngay toog di xalaat ci xasanaat yi jëf yu baax yi ak yiw yi ak li ci yàlla dige ci ay xéewal ci ak texe loolu dalay bégloo nga mën a farlu di góor góorlu ci yiw yooyu kenn du la ca raw yàlla dafa santaane ñuy njëkkante rawante ci bunt yiw yi xalaat gi ngay xalaat nag yool yu rëy yi ak xéewal yu rëy yi yàlla dencal ñiy jëf xasanaat yi loolu day lan yokk mbégte ci xolum jullit bi ngir mu gën a góor góor lu gën a soññ boppam ba bu ëllëgee xewal yooyu kenn du ko ca ëppale ci kanam yàlla subhaanahu wa waaye xalaat bi da koy wan ay sëyi ñaaw ñaawteef yi ak bàkkaar yi mooy yàlla yi ak la ca yàlla diggee ci ay mbugal la koy xaar ëllëg yowmal xiyaama loolu li muy jariñ jullit bi di ko xalaat mooy dana ko ragalloo dana ko tax a jàjju ndax bu xalaatee duma ak daan yu métti ya borom bi dencal ñi koy moy ñii nekk ci sayyaat yi loolu dana tax mu ragal dana tax bu ca nekkoon dana dellu ginnaaw bu ca nekkul woon dana ko gën a ragal gën koo sori muy lu am solo kon lu am solo la moo tax mu ne xalaat ci fii mu toll ci xasanaat yeeg sayyiaat yi wa hiya naatu kulli taalibil ula min rabbina arrahmani jalla wa ala xalaat ci eh, xasanaat yeeg aat yi ak lu ci nekk la muy jur fa muy jëmee nit ki ëllëg loolu mooy melokaanu képp ku bëgg ak kawe képp ku bëgg kawe dangay xool cër yu kawe yu màgg ya xéewal yu rëy ya nga fas yéene kenn du la ca ëpple xool safaan yi ak ni muy doyadale nit keeg li mu koy jural ci ay jafe-jafe nga faxe bu la ca kenn dégg kenn du la ca gis kon melokaan la ci képp ku bëgg ak kawe ci yàlla subhaanahu wa taala moo tax mu ne wahiya moom fikra mooy naatu kulli taalibil ula melokaanu bépp aji sàkku ay kawe min rabbina rahmaani jalla wa ala samratuha li saaxibil irfaani wusuluhu li xadrati rahmaani nee ki nga xam ne xam na ràññee dañ na ci kooku buy xalaat xalaat ba da koy yeggale ci péeb yàlla bi dana ko yeggale ci di yëg ak di dundu yàlla dootul gis dootul bëgg dootul xam lu dul yàlla subhaanahu wa kon lu am solo la waaye nga bàyyi xel bu baax li mu wax muy samratuha meññeti xalaat li saaxibil arfaan ki nga xam ne dafa xam kon ki xamul dafa war a góor góorlu génn ci kàmbug réer fexe xam ak nu mu ci mën a génne nag di déglu borom xam-xam yi di xool seeni joxoñ fañ ko jaarloo mu jaar fa waaye ki ne ca ak réer di xalaat xalaat yi mën na koo juróol sax ay lor ndax du xam fan lay teg ay xalaatam ak fan lay tàmbali ak fan lay yem wa fikratu zuhaadi fi fanaai duniyaahumu wa qillatu lwafaai li taalibiha tuujibu zdiyaada nashaatihim wa zuhdihim rashaada ñi nga xam ne dañoo dëddu àdduna maanaam dañoo raxas àdduna ba mu set ci seen xol dëddu àdduna tekkiwul nit ki baña a liggéey axakay ah, jullit bi dafa war di liggéey ndax yàlla huwa alladi anshaakum min al ardi wastamarakum fiha yàlla dafa bëgg dund suuf bëgg ñu dundal suuf àdduna bii ku yaakaar ne dëdd ko mooy nga toog yàccaaral fas la sa ñaari loxo dara du taaw loolu te mënu koo weesu waaye dëddu àdduna mooy nga génne ko ci sa xol mooy la sëriñ bay jaxate doon wax fee jant bay sowee fee jant bay fenke ak fee muy xaloo sowee man yilif ko ak laxasu yalwaane laa yemale loolu mooy dëgg dëgg dëddu àdduna yilif àdduna ak li ci biiram moom lépp ak ñàkk lépp amoo dara ñooyam képp fi yow muy lu am solo ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci xaal boobu dëddu bu ñuy xalaat àdduna ak ni mu gaaw a jeexee nga xam ne nit ki fii dund wuutewul ak gan goo xam ne dafa wàcc war a delluwaat léegi wuutewul ak ki xëy cib tool war a wàcc dellu ca kër ga te mooy ëllëg yowmal xiyaam xalaat gi ñu xalaat àdduna ak gaaw a jeexam ak nim bëree ay wor nim néewee li muy matal kóllëre ndem dana matal kóllëre loolu day tax ñu gën a sawar ci dëddu gën a xam ne àdduna du dara àdduna du dara maa indakum yanfad wa maa indallahi la fa yàlla rek loola mooy dara mooy lii sax mooy li mat a wut mooy li mat a sonne kon xalaat googu ñuy xalaat ñoom ñi dëddu àdduna dana tax ñu gën a sawar ci dëddu googa gën caa mën a sax ba dara du leen ca génne euh, ñi nga xam ne it dañoo doon ay jaamukatu yàlla nga xam ne dañoo tàggat seeni cër ci jaamu yàlla xalaat gi ñuy xalaat it jaamu yàlla yii ñuy passé seen waxtu guddeeg bëccëg yool bi leen ci xaar ëllëg ak ngëneel li leen ci xaar day tax ñu gën a am xememteef gën a sawar ci jaamu yàlla gi loolu lay wax ne wa fikratul ubbaadi fi jamili sawaabihi jalla maa tafdili wa fikratul ubbaadi fi jamili sawaabihi jalla maa lahum fihi maa nashaatihim alayhi laazim waraa nga xam ne nag moom mooy ki yàlla te ki xam yàlla dëgg-dëgg mooy ki dem ba am nga xam ne nekkul sax lu muy jàng wala luñ koy wax muy dégg waaye am na yaqiin ci xolom ne moom lot na walit muy xam yàlla la nit yàlla ba waxoon wa muuqinun wujuda rabbin waxtaraf bil ajizi an idrakihi faqad araf ki am yaqiin ci amuk yàlla itiraaf ne moom lottu na wëlis muy idraak yàlla kooku mooy ki xam yàlla waaye ki yaakaar ne dangay xam yàlla ci xam dëgg dëggi jëmm yàlla ji ak di ca jëf say xalaat loolu sànq sa dund waaye jëmale sa bopp ci lu lay sànq ah, gënu koo rëy walaysa danbun fawqa danbil qaidi bil fikri fii daatil aliyil xaafidi nama saa bu gënee yëg ak lottam ak réeram ci boroomam loola mooy tekki ak xamam boroomam mu ne wa fikratul aarifi fil aalaa'i wa nu'amaa'i faatiri samaa'i taziiduhu mahabbatan lil xaqi subhaanahu rabban li kulli xalqi nee na aji xam ji yàlla buy xalaat xéewali yàlla it xéew yóbbu day tax sa xol fee fees ak bëgg yàlla te bëgg lu rëy la ndax li nga bëgg ba mu fees sa xol la ca topp rek mooy faw da nga koy lenn ci asalafu saalix way jiitu yi lan lañ wax ci xalaat ndax euh, bunt bi dafa yàgg yitteel nit ñu baax ni ñii sàkku yàlla ñii yar jaamu yàlla yi dañoo yàgg yittewoo xalaat comme ni ko alquran jàngalee sunna jàngale ko am na nit yàlla abu suleymaan ad daaraani moo daan wax ne man danaa génn sama kër bu ma génnee amut lu sama bët di tegu lu dul gis xéwal gu ci loola lu ma xool rek gis naa ne xéwal gu ma ci yàlla defal lu ma xool jële naa ci ibra jële naa ci ak waaru inni la aruju min manzili fama yaqau basari ala cheyin illa raaytu lillahi alaya fihi necma wali fihi ibra lu ma xool rek lu mu mën a doon nag bu ma xoolee ci asamaan fi jant bi weer wi bidiw yi garab yi njanaaw yi suuf si nit ñi lu ma xool rek danaa gis xéewalu yàlla goo xam ne defal na ma ko ci lii muy lu am solo dafa am ñaar ñu ànd di dox ba mu yàgg di romb ay ay kër yu baax ak ay warawaay yu baax kenn ki comme moom xalam dafa jëm ci àdduna ne moroom ki waaw xéewal yu rëy yii xéewal yu alal yii ba ko yàlla di séddale ana anañu ñun boobu fu ñu nekkoon lu tax yàlla joxut ñu ci moroom ki di nitu yàlla koo xam ne xalaatam yépp ci yàlla xéewalam ak mbaaxam la jëm jàpp ci loxoom dem ci benn hôpital fekk woy feebar yi ñañ fa entré xeetu feebar bu ne ñii seen bopp ngi toj ñii seen tànk ngi damm ñee ngay sukaraat mu ne ko waaw ana nattu yi ak jafe-jafe yi yépp ba ko yàlla di sedd nii boobu ana ñun lu tax teguñu ko gis nga ni mu ko tourné wan ko ne ko yow yaa yittiwoo àdduna moo tax ngay xoolee waaye la jaadu woon nga xool ñi nga féete kaw tane leen ak ñi yàlla teg ay jafe-jafe te gënoo leen mu mën mënoon laa teg lu toll ni lim leen tegtal wala lu ko gën a diis te defu ko kon lu am solo la ah, moom Abu Suleymaan ad-Daaraani wa wax ju mel noonu la doon wax lépp lu mu xool rek dana ci gis xéwal gu ko yàlla defal waaye dana ci gis lu ko mën a waar lu ko yokk ci diggante ak boroomam subhaanahu wa taala al ibnu bokk ci asalafu saalix moom it waxoon na wax joo xam ne sëriñ bi indi na ko ci bunt bii ñuy jàng Euh, wax nañ ko léegi mooy alfikratu miraatun turika xasanaatik wa sayiaatik xalaat seetu la boo xam ne daf lay wan say xasanaat moom la sëriñ bi wax léegi te loolu dafa lay bégloo nga gën a farlu di la wan say sayiaat ragal loola ngir nga dellu gannaaw jàjju walis mooy yàlla walis lépp lu yàlla gërëmul mu yaxal fii ne wabnu abi jara fax bii ni radiyahu xiini نص بأن الفكر في الأزمان أفضل الأعمال لذي الإيمان إذ علمنا القطعي ليس يحصل إلا بفكرة إلا بفكرة بذهن يعقل ابن أبي جمرة di borom xam-xam bu mag di kàngam di kuy ci diine ji yàlla na yàlla gërëm ko nee na toog xalaat mooy jëf ji gën ci waxoon nañ léegi na xalaat jëf la day jëfi xol xam nga ne jullit bi ngir nga doon jullit rek lay jiitu mooy sa xol dëggal yàlla dëggal risaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu jëf la joo xam ne xalaat moo la koy may la ca toppaat nag mooy loola nga yëg dëggal ko ci sa xol nga tudd ko ci saw làmmeñ mu doon seede sa diggante ak yàlla waaye sa diggante ak jaamu yàlla yi ibnu abi jamra moo tax mu ne kon xalaat mooy jëf ji gën ci koo xam ne ku gëm yàlla la ndax xam-xam bi nga xam ne xatu yi la ilmul yaqin la wala aynul yaqin la wala xaqul yaqin la la féete kaw mënu koo am mukk lu dul ci xalaat id ilmuna alqatiyu laysa yaxsulu illa bi fikratin bi zihnin yaqilu wa hakada alimaanu laysa yasduqu illa biha aydan ala ma ttafaqu imaan muy gëm yàlla du doon lu sax ci xol xam nga gëm yàlla wax ko ci làmmiñ yomb na waaye dund ko bam mu fees ci ab xol jaxasoog ay cër jaxasoog deret loolu mooy dëgg dëgg mbir ma waaye mooy la jafe moom la alquran doon dàqal aw nit ñu tudd baat seet yi rek jàpp ne ñoom gëm nañ yàlla qaalatil arabu naa yàlla ne qul lam tuuminu walakin qulu aslamna walamma yadxulil imaanu fi qulubikum imaan googu ngir mu dugg ci seen xol lu leen koy may mooy xalaat kon bu ñu yaakaara ne euh, dañuy toog ne gëm nañ yàlla ci suñu làmmiñ rek tudd nañ baat seet yi ci suñu làmmiñ loolu moo ñu def ay dëgg dëggi jullit dañuy juum loolu benn maqaama mu njëkk la rek waaye dëgg dëgg mbir yi ma ngi ca gannaaw ma ngi ca gannaaw yi gannaaw moo tax ngay jàng ci alquran wax ju rëy yàlla di wax ne yaa ayyuha alladina amanu xoolal yéen ñi gëm yàlla ba noppi mu teg lan aminu gëm leen yaa ayuha alladina amanu aminu ndax am ngeen imaan ci làmmiñ waaye imaan bi na na dugg ci xol na fees ci xol na jaxasoog yi yaram yi na jaxasoog deret bi ba mu doon loo xam ne duñ mooñaale ci yow la dara du la tàqale ak moom loolu nag lala koy may mooy xalaat moo tax mu ne gëm yàlla du dëggu lu dul xalaat dafa jiitu te ki xalaat ba am yaqiin door a gëm bokkewul ak ki ñu wax rek ba di hatan mu gëm walaysa tasdiqun wala imaanu bihi bu aydal fikri yaa ixwaanu ka misli liimaani badihatan bihi fal awwalul akmalu fal tantabihi ngëm yàlla gi mat mooy gëm yàlla gi nga xam ne euh, dafa ñëw ci gannaaw xalaat imaan ak tasdiq gi ñëw gannaaw xalaat bokkewul ak imaan bi nga xam ne wala tasdiq bi nga xam ne moom badiha la dafa ñëw rek ci wax nañ la nga doyloo liñ la wax daal li koy gëm te xalaat bu xóot jiituwut ba nga am yëg-yëgu ne lii nii rek la mën a deme sëriñ bi continué di wax ci eh, yiw ak njariñul xalaat wax ne wa axbaru bi annahu afdalu min ibadati dahri bila xulfin yain waxoon na fee ne xabaar nañ ne moo gën jaamu yàlla at tey nag afdalu moo gën min ibaadati dahr sa jamono yépp boo ko doon jaamu yàlla te doo jëfandikoo xalaat jaamu yàlla goo xam ne daa ànd ak xalaat ak lu mu néew néew moo gën jaamu googu nga xam ne fees na sa jamono yépp te àndul ak xalaat loolu asar la boo xam ne bu ñu nettali la muy lu wér jëlee ci sayyidna abdullah ibnu abbas radiyallahu anhuma wax na ne julli ñaari ràkka yu ànd ak teewlu ak xalaat moo gën fanaanee julli moo gën yendoo julli dëkkee julli sa jamono yépp te xalaat boobu ak teewlu googu doo ko def loolu tax sëriñ bi wax ne wa axbaru bi annahu afdalu min ibadati dahri bila xulniyain idil fata ida tafqawi imaanuhu xaqiqatan kamaaru wi nit ki nu mu gën a xóotalee ay xalaatam num gën a sooboo gën a lab ci géeju xalaat te xalaat bi yépp nag mooy xalaat ci mbindeefi yàlla yi xalaat ci kéemtaani yàlla yi di xam kàttanu yàlla ak man-manam ak sañ-sañam di gis ay xéewalam xéewal yu rëy ak sàmm gi ko yàlla di sàmm li ne ci àdduna ci musiba ak jafe-jafe yépp yàlla di ko ci musal di ko ci aar loolu mooy dëgëral sa gëm moo lay jëmee ci nga sopp yàlla moo lay jëmee ci nga xam yàlla moo lay yeggale ci péeb yàlla ba yaqi xol fata i imaanuhu xaqiqatan kama ruwi wa dahara alxaqu lahu yaqiina fa yaxtawi safaa wa tamkiina yàlla nettali nañu kenn ci ay yonantam ibrahim xalilullah alayhi salaam nga xam ne moom bim màggee gisul lu dul aw nit ñuy jaamu xërëm gëm lii jaamu amul njariñ du jariñ du lor ci la ko weddee gis na ci mbindeef yàlla yi lu gën a rëy xërëm nga xam ne bu jaamu am mbindeef jaadu woon tax ñu ñu jaamu leen ñu soox du yàlla ay mbindeef yàlla la ci la dellu ci yàlla tàllal yàlla ñaari loxoy xolam ñaan ko yàlla gindee ko ba boole ko ci ulul azmi min ar rusul boole ko ci yonentu yi gën a mag yonentu moo tax ne wa quwatul imaani bil jabbaari bi qadri taamiqika fil afkaari quwatul imaan sa kàttanu gëm yàlla doole yi gëm yàlla dëgëru gëm yàlla mi ngi toll ni sa xalaat toll ku la gën a xóotu ci ay xalaat gën laa gën a dëgër ci ak ngëm ku la gën a yàlla gën la dëgër ci wa quwatul imaani bil jabbaari bi qadri taamiqika fil afkaari mu ne kon fa adimi nadara bu dee xam nga li te xam nga ko fa adimi nadara fi miraati fikrin ma al xalwati fil awqaati na ngay xool bul teggeeti sa bëti xol del xool jamono ju ne ci seetu bi seetu bi mooy lan mooy fikru xalaat sa bëti xol bum teggeeku ci seetu xalaat saala xool ci seetu bi maal xilwa ànd ak wéet jullit bi dafa war di wéet jël ci waxtoom loo xam ne da koy jagleel boroomam bàyyi àdduna ak bagage àdduna wéet ak boroomam di teewlu di xalaat màggug yàlla loolu faw jullit bi di ci yar boppam ba tàmm ko looloo koy dimbale ba fu ko sharia soxlaa ci teewlu lu mel ni julli mu war a teewlu màggu yàlla julli gi yépp loola da koy yomb daf koy yomb lool waaye ki nga xam ne moom balaa jéem a xalaat ak a teewlu rek mooy daa kàbbar di julli dëgg-dëgg du ko mën sax ci julli gi dana ci lot kon di di jël sa waxtu di di xalwa di wéet ngir di wéet ak sa boroom di xalaat ci kéemtaanam yi di xalaat ci mbindeefam yu màgg yi ak yi nga war a xalaat yépp loolu dana la may sa xol tàmm na teewlu miin na ko ba ëllëg boo kàbbaaree di julli day yomb ci yow lool nga mën a teewlu yàlla sa xol du génn julli gi benn yoon kon na ngay saxoo xool ci seetu boobu nga xam ne mooy seetu xalaat waaye ma xal wa wala ma al xilwa ànd ak di wéet aw awqaat boo ko defee rek yallakal xaqu hunaaka yaa qalil li annahu sababu iqaanil qalil nee na dëgg dana leer fi yow dana doon loo xam ne du luñ lay wax ngay gëm waaye day doon loo xam ne lu lu sax ci sa xol lay doon ba boo ko bëggoon weddi sax doo ko man yabin la kal foofa la dëgg di biree foofa la dëgg di leeree ndax xalaat boobu ak wéet googu di xalaat sababu iqaanil xalil mooy sababu wóolóog mooy sababu eh, yaqiinug yonent yàlla ibrahima alayhi salaam ni ko alquran waxee wali yakuna min mu muqinin ngir mu bokk ñi am yaqiin te ku ne xam na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njëlbeenam njëkk yàlla di ko yónnee bëri woon na lool lu daan daw àdduna ak waa àdduna di dem xaaru xiraa ay fan di wéet xaaru xiraa bu fa toogee du gis lu dul ay kéemtaani yàlla yu rëy moo xam jëmmi montagne bi mu toog ak li ci kanamam ak li ci gannaawam ak li ci ay wetam bu téenee du gis lu dul asamaan seeg mbindeef yi ci kaw dëgg-dëgg kooku moo wéet moo mën a teewlu màggu yàlla ba ab xolom fees foofu la ko jibril fekk wàccee ci moom alquranul karim fekk yàlla préparé na ko ci ay xalaat laabal na ab xolam ci àdduna ak li ci biiram mën naa dékku waxyu yàlla bi yàlla jox ko alquranul karim ala alxabibi wa alayhi wa ala jamiihim azka salaami man ala mu teg ci wax ju am solo yaxsulu bilfikri min alyaqini fi saatin waxidatin fi ddiini maa laysa yaxsulu lahu walaw abad jamica dahrihi bi geyrihi abad toog di xalaat ci benn waxtu mën nga cee am yaqiin ci diine yaqiin boo xam ne boo àndu am sa dëgg-dëgg tomb la bunt la boo xam ne e, bu yittee bu jullit ñi war a gën a bàyyi xel la jaabu yàlla yi ngay def yëpp bu dee julli du sëgg ka siggi ak taxaw ak a toog ak yi ngay jàng ak yi ngay tari am na ci solo lool waaye lubbul lubbi julli mooy teewlu gi ngay teewlu ak di yëg màggu yàlla di jëfee ndigalam gëm ne àdduna bi ngay dund ak lu soxla yitte yi bari bari sa boroom dafa am ci yow cër bu rëy di ko jox ab cëram waaye bu fekkee yow sa xol yépp dafa lab ci àdduna say xalaat doo ko jëmale la julli yëpp rek weesuwul ku taxaw di léeg mu sëgg léeg mu siggi di toog ko jóg waaye xelam génnul benn yoon ci àdduna ak ay bagaasam ak ay yitteem loolu dëgg-dëgg day mel ni diina ju woyof la joo xam ne aw xott rek lay gën a nirool waaye lubbu diin bala nga koo am bala nga koo yëg dund ko te loolu moom la lislaam soxla ci yow moom la yàlla soxla ci yow da ngay doon koo xam ne da ngay xalaat te sab xalaat nga bañ koo teg jëmee ko ci loo xam ne luy sànk la bañ koo jëmee ci dëgg-dëggi dëgg jëmmi yàlla ji nga xam ne moom euh, xam ko mooy réere ko ku la gën a réere yàlla gën laa nangu ak réeram kooka mooy ki la gën a xam yàlla ba tey mu wax ki nga xam ne mooy xalaat fa yatayassaru alayhi diinu kama bihi nassal fatal fatinu bëri na lool tey ci jullit ñi ñoo xam ne diine kallu la dafa diis gàng ci seen kaw moo tax ñuy xëy di woor ba ngoon amuñ benn yëg-yëg seen diggante yàlla ci koor gi ñuy woor bëri na koo xam ne julli ga muy julli sax waxtu yu jot na naa julli gaaw te génn ci naa julli rek gaaw te génn ci naa julli te tàggoog warte foofu nga xam ne tegu na sama kaw awma ci benn pexe nga xam ne loolu lu metti la lu diis la ci moom ba muy joxe alalam ngir yàlla wala ma ngay génne asaka wala ma ngay xajit daanaka coono ba eh, ak yem cay jànkuwanteel ciy jafe-jafe loola rek lay yëg na ko def rek te mu wàcc ko loolu li koy yóbbee jullit bi mooy xol bu dul dund xol bu sàgganee lu mu waroon a fonk te mooy di teewlu yàlla ak di xalaat màggu yàlla di ko xelaa mën a am mën a am ak liin nga xam ne la muy def bu dee julli la loola day doon bànneex boo xam ne mooy gën a rëy gën a neex ci moom bànneex bu mën a doon ci bànneexu àdduna bu dee koor geeg jaamu yàlla bu mu mën a doon yëg-yëg bu mel noonu la ci am yëg-yëg bu mel noonu la ci am day doon loo xam ne euh, fa tabaarakallaahu yëg ne moom mi ngi ci aljana mi ngi dund aljana doonte mi ngi dund moo tax mu ne fa yata yassaru alayhi diinu kii xalaat diine day doon ba nekk ak yusru nekk lu jàppandi nekk jàmm nekk xéewal nekk aljana ci moom kama bihi nassa nassal fatal fatinu ibnu saidin aljihbisu daymaani alayhi sarmadan rida rahmaani mu tekki ne e, lenn ci nit yàlla yi dañ koo laaj wa baaduhum ajaaba xiina qiila bima arafta rabbaka aljalila lahu bi naqdiya jamia matara min al azaimi tafakkar tavara benn nitu yàlla dañ koo laaj yow naka nga def ba xam yàlla mu ne bañ a sàgganee dara bañ a neenal dara lépp lu gaar rek danaa ko naqdu danaa ko càmbar xalaat ci biir ak bitti xalaat ci ba am ci ay natiija yu la naññ lii rek moo ma yeggale ci yàlla moo ma xamal yàlla sëriñ bi nag teg la ci yoon ne la wa xayru mal abdu yakunu daa fikar fiihi samaawaatu wal ardu fil xabar li gën ci lijaam bi di xalaat mooy mbindeefu yàlla yi rawat na mm, maanaam ci mulkulaay ak malakuutuhu euh, mbindeefu yàlla yu màgg yu rëy yi nga xam ne kàttanu doomu aadama ak man-manam tuuti na ci kanamam lool lu mel ni asamaan yi lu mel ni suuf yi ak mbindeefi yàlla yu màgg yépp te loolu mooy alquran waxoon nañ ko ci ba ñuy tàmbali inna fii xalqi samaawaati wal ardi ci xalqu gi bind gi ak kan moo bind lii lu tax mu bind leen xikma bi mu leen bindee ak kàttan gi mu leen bindee man-man bi nga xam ne ci lay doxalee lii muy doxal loolu mooy li gën ci li nga xam ne yow jaam bi yaa ngi ci xalaat boo xoolee yonente al ibrahim ba muy dàggisanteeg buur boobu weddi woon yàlla di woote uluhiya alquran dañu ko nettali alam tara ila alladi xaaja ibrahima fi rabbihi an aataahu llahu almulk id qaala ibrahimu ibrahima ba muy wax ak moom waxut ko ci jëmmi yàlla ji waaye da koo delloo ci lim xam mooy ci mbindeefi yàlla yi xamal ko ne yàlla mooy mooy ki bind dee ak dund mooy dundal mooy rey kooka bëgg a féttéerlu wane ne moom am na doole bu ko neexee rey bu ko neexee dundal Ibrahima bàyyi ko foofa delloowaat ko ci yeneen mbindeef delloo ko ci jant bi ak fi muy fenke ak fa muy sowee lépp rek ay mbindeefu yàlla la koy wan yoo xam ne doomu aadama ak lu mu kàccoor kàccoor ak lu mu réer réer dana xam ne man-manam ak pexeem yeggu fa loolu ngay fekkaat ca yonentu yàlla Muusa alayhi salaam ba muy dàgg dàggisanteeg noonu bu yàlla ba firawna firawna di ko laaj wa ma rabbul alamin da ko doon laaj ñun suñu yàlla yi ñuy xam bu dee firawna moom nit la am ñu ko jàppe yàlla di ko jaamu ñiy jaamu xërëm ay përëm ki ay weñ suuf ay fëriñ lu ne dañ ci defar ay yàlla di ko jaamu wala ay bant loolu la doon laaj Moussa yow sa yàlla ji ci ban matière la bokk wa maa rabbul alamin Moussa delloo ko ci fi yàlla yi ne ko rabbu samaawaati wal ardi wa maa baynahuma mooy borom asamaan yu rëy yu màgg yi ngay xool mooy borom suuf su màgg su yaatu su rëy si ak li ci diggante bi ba Firawna continuer di ko laaj ak di wax ak nit ñi yëpp. la ko Moussa di tontuwaat yépp rek da koy delloo ci lan ci mbindeefi yàlla yi kon wa xayru mal abdu yakunu daa fikar fiihi samaawaatu wal ardu fi lxabar benn wa baadaha fikratuhu fi niami li annaha taziidu xubba almunimi gannaaw loolu di xalaat ci xéewal yi la yàlla di defal ak sa xaala nu mën a demee nag boo xalaatee da ngay yëg ne yàlla defal na la xéewal yu rëy xéewal yoo xam ne ku dul moom lott na ci ku dul moom bu ko mënoon ndax dana ko nangu comme ni ni ko nangoo ni ni mu la ko defalee moom kon di xalaat xéewal yi loolu day jural aji xalaat ji xubbal munim bëgg aji xéewale ji muy yàlla subhaanahu wa taala te jullit bi wax nañ ko dafa war a bëgg yàlla yàlla doon na joxe misaal ci ñoo xam ne dañuy bëgg leneen lu dul moom di leen jox misaal ci bëgg gu toll ni gi way gëm ñi di bëgg yàlla ba wax ne walladina amanu ashaddu xubban lillah loolu loo ci war a jànge mooy yow jullit bi ki la war a gën a bëgg gënal ki nga war a gën a bëgg mooy yàlla sa borom subhanahu wa taala bokk na ci lii li lay may bëgg yàlla di dëgëral di yokk sa bëgg yàlla subhanahu wa taala di xalaat xéwal yu rëy yim lay defal bi nga ne àdduna ak fii nga toll ak fii nga jaar yëpp li la gaar ci lu la mënoon a lor yàlla musal la ci lim la xéewal ci ay xéewal yoo xam ne bu doon lu ñuy jaay mënoo koo jënd bu doon lu ñuy fàggu sa man-man yeggu fa loolu dana tax nga bëgg ki la defal xéewal yu màgg yi waaye ñetteel bi wal fikru fi sawaabihi lil muminin gadan yazidu raxbatan lil muslimin di xalaat yool bi yàlla dencal way gëm ñi ëllëg dana dolli xemamteef dana dolli ak farlu ci jaamu yàlla yazidu rahbatan lil muslimin fi taatin lahu maa ijtihaadi wa daaka xayru nafi lil ibaadi waaye di xalaat it safaan ba muy mbugal mam dencal yéefér yéeg ñu koy mooy dana tax nga ragal wal fi l iqaabi lil kuffaari fi nnaari yufdi l abda lisdijaari kama yazidu rahbatan wa manaa min al maasi nicma daaka nafa xalaat mbugal mam dencal yéeféer ya ca safara dana la yóbbee nga jàjju bañ a jëf-jëfi kéefér dana la dolli ak ragal dana la dolli ak ndaw ak terewu lépp loo xam ne mooy yàlla la loolu lu rëy la lu bari njariñ la lu amul moroom la waaye bokk na ci lu am solo loo war di xalaatit mooy sutura gi la yàlla di suturaal wal fikru fii sitri dunubina huna yazidu listixyaa minhu zamana kama yaziduna rajaa al xayri maunatan minhu bi xayri dayri mu ne di xalaat li nga toggoo ci ay bàkkaar ci ay ñawteef li nga làmboo ci ak càggante ci ay xeeti mooy yàlla yoo xam ne bu ko yàlla wuñ wuññi woon ñëpp xam ko rek maara day taali waaye yàlla suturaal la sutura gim suturaal say bàkkaar dana la yóbbee dana la may lan al istixya nga doon ko am kersa boo doy ko am jom dana la yóbbee kersa ba danga ragalati da rusa mooyati yàlla sa rusa ndigalam dana taxit nga gën koo yaakaar dana tax sa yaakaar yàlla di dolleeku loolu ndimbalal lu àndul ak benn lor mu ne wal wal tuksiril fikrata fi lxalaaiqi baada taallumika laa fi lxaaliqi wal tuksir na ngay bëril looy xalaat wal tuksiril fikra waaye ci lan fil xalaayiqi ci mbindeef yàlla yi comme niñ ko waxee ay yoon wa kañ baada taallumik waxoon nañ ñi ngi waxaat ki nga xam ne moom xamul te bu ñu waxee ki xamul mooy ki réere diine ak leneen lu mu mën a xam nag nit ki lu mu mën a xam ci àdduna bu ko boolee xam-xamu diine lu mu tuuti tuuti dana ko dimbale dana ko jariñu ba ci biir diineem waaye loo mën a xam ànd ak réere diine yow sa fardu ayni maanaam dangaa nekk ci kàmb ak sànkute amul dara lu la war a ñor lu la war a yitteel loo war a sonee lu dul gaaw daw génn ci biir kàmb gi te mooy kàmbu réer di jéem a xam lu sa diine sa kem kàttan ak noo ko mën a xamloo nag moo tax mu ne na ngay bëri looy xalaat fil xalaayiq ci mbindeef yi baada taallumika gannaaw sa xam lu sa jàng jéem a dañ ci réer waaye laa fil xaaliq bu mu di gis ala tafak fii maxluqaatihi wala tatafakkaru fii daatihi xalaat yi nay jëm ci mbindee fi yàlla yi moo lay yeggale ci yàlla xamal la yàlla bëgg la yàlla rus la yàlla yaakaar loola yàlla loolu la tax a jóg waaye bul xalaat ci jëmmi aji bind ji am nañu ko def di xalaat ci jëmmi yàlla ji ba sànq mu yóbbee leen ak weddu yàlla yóbbee leen ak ilxaat ñuy dund ci ay musiba ci kàmbi réer ci kàmbi xalkande loolu du du yoon wa du yoon wu baax wa kon sëriñ bi macha allah joxoñ na la fi nga war a jëmale say xalaat waaye watt loola lépp loo xam ne moom xalaat waru faa jëm tàmbalee ci la gën a dansé nag mooy laafil xaaliq laafil xaaliq bul di xalaat ci jëmmi aji bind ji na nitu yàlla bu waxoon wax ju am solo wa muuqinun wujuda rabbin waxtaraf bil ajzi an idraakihi faqad araf kii wóolu am yaqiin am yaqiin ci xolam amul yàlla su nangu lott na walis muy jot di xam kooku mooy ki xam yàlla waaye amul bàkkaar bu gën a rëy bàkkaaru kii xuus di xalaat ci jëmm yàlla ji wa laysa danbun fawqa danbi alqaaidi bilfikri fi daati alaliyi alqaafidi man fakka xaadisun an aljahli bihi min ayna lil xaadis ilmu rabbi yi xaadis mooy mbindeef képp ku sosu rek mosoo dañ di réere yàlla subhaana taala ana fan la mbindeef di jaar ba xam jëm yàlla ji gaayatu ilmi al ulama wa muntaha idraaki arbaabi al uquuli wa nuha an yaclamu anna li hada al xalqi muctarian awjadahu bilxaq muttasifan bi sifati al kamaali munazahan an diddiha al muxaali nee na fa dayoo xam-xam yi yem fa xam-xamu mbindeef mën a yem mooy nit ñi xam ne am na ku leen bind am na ku bind mbindeef yépp ci dëgg te kooku ku melo wala mboolem sifaatul kamaal ku sori la ci lépp loo xam ne ak manqué lépp lu jomb ci moom id turuqul maarifatil kibaaru iyaanu naw misaalu naw aasaaru fa awwalun manaahu aljabaaru id qaala laa tudrikuhu al absaaru والثاني أيضا la bada saari sanaatihi fi laalami sayyaari nee na yoon yi gën a rëy yi nit di jaare ngir xam bi ci njëkk mooy ayaan jàkkaarloo bi mooy misaal ñetteel bi mooy aasaar ay jeexit euh, njëkk bi ayaan yàlla da ko tere laa tudrikuhu al wa huwa yudrikul absaar nit du gis yàlla ak ñaari bëtam jàkkaarloog yàlla di ko xool loolu mustaxil loolu euh, di ko wax sax mën naa yóbbee nit ki ci kufru ñaareel bi misaal wasa li annahu laysa lahu min misl kon lu fi des mooy aasaar yi aasaar yi jeexital yi mbindeefam yi ci nga koy xamee alaa tara baaratan alal bair tadulluna wa qadaman alal masir ni ko sëriñ bi waxee ca tazawudu shubban lépp loo gis rek muy mbindeef yi wala mu bàyyeekoo ci mbindeef day tegtale aji bind loola mu yàlla subhaanahu wa taala loolu tax sëriñ bi di la wattandiku loolu laa fil xaaliqi xalaat yi bu mu jëm ci jëmmi aji bind ji mu tegal la ci ne bul di xalaat bu dee ab faqir nga ci ñàkk gi nga ñàkk doon ab faqir yaa ngi dund ci wéradi wala ci jafe-jafe bu mën a doon sa xalaat bu muy jëm foofa wala bu fay jëm na fa jëmee ci anam goo xam ne ijaabi la mooy sama ñàkk geeg feebar beeg jafe-jafe yeeg nattu yeeg tiis yi ak nu mu mën a mel rek mënoon naa gën a métti am na ñu ma gën a métti kon xaala bi ma toll man dama ci sant yàlla waaye bul di xalaat mukk nag ci sa say jafe-jafe ci anam boo xam ne salbi la mu lay jëmee ci ñaaw njortu sa digganteeg sa borom ak di xeeb xéewali sa borom ci yow te loolu ëpp naa def jullit wërta xalaat loolu muy la it aw zulmi shaxsin saalimin aw aw zulmi shaxsin zaalimin fa tuksira baynakuma xeqdan wa gaydan fasbira aji tooñ ji ji tooñ bul di bëri looy xalaat jëm ci tooñ ay aji tooñ ndax loolu lu mu lay yóbbee rek mooy di ko gën a bañ muy jur ak noonu te bu dee ab jullit la war ngay wattandiku lépp luy jur ak noonoo ak bañ sa digganteeg sa moroomu jullit bul di xalaati euh, kon euh, ci ci jeexu bunt bi euh, sëriñ bi indi na fi xalaat def ko muy jihaad wa afdalul jihaadi manul fikr min kulli ma lam yaani kulla dahri ngën ji jihaad mooy nga tere sab xalaat muy jëm ci loo xam ne lu neexul yàlla subhanahu wa la loolu jihaad du kawe la waaye wa huwa ashuddahu mooy la gën a jafe ci jihaad yi ku ko dul jéem ci lu dul julli danga ci lot danga ci tëre doo ko mën ci julli fa man laa yafalu fi gayriha yaani fi gayri solaa laa fi salaati yaamalu mu fedd liwaat joxaat la yeneen ndigal ngir jeexal bunt bi ne la fal tudimil fikrata yaa xamimi fi l ardi walsamaai walnujuumi walchamsi walqamari wal ashjaari walmaayi wannaari wa fi l ahjaari wa geyriha kalleyli wannahaari tanal yaqiina alqalbi bil anwaari sax-sax jëm samaan bidiw yi jant bi weer wi garab yi ndox yi safara yi doj yi ak yeneen mbindeefi yàlla yépp comme guddi yeeg bëccëg yi loolu say xal mooy mooy sa xalaat jamono ju ne kon nay jëm ci mbindeefu yàlla yooyu tanal danga nga am yaqiinal xal bi loolu moo lay may yaqiin ci sa xol mooy tax sa gëm yàlla dootul nekk lu ñuy wax ci làmmiñ wa jaxasoog xol jaxasoog deret lay doon waaye bil anwaar loolu moo lay jox ay leer muy lu am solo euh, yaqiinul xal bi ak anwaar yàlla yàlla defal ñu ko te defal ko bépp jullit kon ñu ngi yem foofu di santaat yàlla waaye di ko ñaan euh, jàng bu am solo bii nga xam ne moom la sëriñ bi jàngale yàlla xirtal ñu ci jëfloo ko te li ci nekk ci ay yiwit mu defal ñu ko ba weer wu màgg wii ñu nekk nga xam ne mooy weeru koor ci téere bi sëriñ baa ngi wax ne koor dafa doon ay xaaj am na koo xam ne kooram yépp mooy bàyyi lekk ak naan loolu yàlla amut ci soxla yoon bi sallallahu alayhi wa sallam wax na waaye loolu mooy sawmul awaam sawmul xawaas mooy nole si biir dàq ko ñu waral seeni bët duñ xool seeni tànk duñ dox jëm ci fu xaraam waral seeni loxo duñ laal lu xaraam waral nopp yi duñu déglu lu xaraam làmmiñu du wax lu xaraam ba cër yi jeex waaye gannaaw loolu li muy màgg màgg nag nga xam ne moo tax ñu naan koor am na lu ko gën a rëy te mooy sawmu xawaasil xawaas mooy wooral seen xalaat fexe ba seen xal dootul génn yàlla ci loolu lañ di di ci gont moom la ñu di ko yendoo yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa ummatin uh, jërëjëf oustaz <coughs> ci waxtaan wa am solo bi uh, ni nga xamante ne nii moom nga ko indee liñ ci doon séntu lépp uh, gis nañ ci lu kawe suñ jort ñi ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax ci jàngat bi nga xamante ne nii indi nga ko ci wàllu xalaat ci sa biir jàngat nag gis nañ ci nga leeral ci lu bari lu am solo loo xam ne jullit bi toujours war na ci delluwaat ndax gis nañ nga wane ne lislaam fi nga xamante ne nii fi la teg xalaat nit ki dafa war di jëfandikoo am xelam ci lépp loo xamante ne nii daf koy jariñ ñu gis ne it indi nga ci biir alxuraan ay aaya yoo xamante ne nii dafay juñju di tegtale yàlla suñ borom bi mu sàkkee doomu aadama bi ba pare jox ko xel dafa war a jël xelam moomu jariñoo ko ci lépp loo xamante ne nii daf koy e, yokk ci diineem wala ci wàllu adunaam nga indi it ay aaya yoo xamante ni dafay tegtale tamit yàlla suñ borom day tagg ci biir alxuraan ñi nga xamante ne nii dafay dañuy jëfandikoo seen xel mooy lépp lu ñëw rek dañ cee jëfandikoo seen xel di segg di taataan di xool la nga xamante moo gën a sell moo gën a baax ñu jël ko jëfandikoo ko euh, ci biir loolu tamit gis nañ tamit nga indi aaya yoo xamante ni yàlla day ŋàññi ñi nga xamante ne ni du jëfandikoo seen xel muy safaanub ñi nga xamante ne ni ñoom nga njëkkoon a wax euh, di ñëwaat tamit euh, alquran nan lay taw jiixee doomu aadama bi mu xalaat maanaam xalaat bi daal du nekk xalaat boo xam ne dangay booyal sa xel rek ci lu la neex xalaat waaye daf lay tënk ci xalaatin woo xamante ne nii walay amal njariñ la ci sa diine wala ci sa àdduna euh, nga leeral ci biir ba tey tamit dara jatul awliya mooy nit ñu baax ñi seen martaba ni mu doon yokkoo ci wàllu xalaat ci seen borom ak di dellu di dellu ci seen borom lu baree bari loolu tamit indi nga ko ci biir euh, waxtaan wi ak it ci biir téere bi nga xam ne moom nga tibbee waxtaan wi muy masaalikal jinaan sëñ Tuubaa di leeral maanaam jëmmi xalaatin sukkandiku ci borom xam-xam tasawuf yi nga xamante ne ni ñoo ko jiit woon naka lañ ko gisee woon ak naka lañ ko déggee woon loolu tamit leeral nga ñu ko ci biir waxtaan wi euh, ba tey tamit leeral nañu ci biir waxtaan wi diggante tudd yàlla mooy jaamu yàlla ak xalaat naka lañ lënkaloo naka lañ lënkaloo ñoom ñaar indi nga ko ndax ki nga xam dafay jàkkaarloog boromam kor dafa war a delloo lépp xelam yépp daf koo war a euh, delloowaat ci boromam loolu tamit indi nga ko ci biir waxtaan wi. Euh, euh, leeral nga tamit ne xalaat dafa nekk jaamu yàlla goo xamante ne nii dafa am solo ndax nit ki mën nay taxaw di julli wala muy def yeneen jaamu yàlla yoo xamante te xelam du ci nekk waaye nit ki taxaw di delloo xelam ci boromam di ko xalaat kooku jaamu yàlla la goo xamante ni moo gën ci. jaamu yàlla yi nga indi ni tamit natiija bi mooy résultat ban la xalaat am mooy xalaat wane nga ne e, nit ki xalaat dafay ràññeele ndax day xool li rafet ak li nga xamante ni moo ñaaw mu tànn ca la gën bàyyi ca la nga xamante ni nii ab safaan la nga wane ne loolu nag mooy melow képp koo xamante ne nii dafa bëgg a àgg ci boroomam nga indiwaat ci biir tamit lan mooy meññetum xalaat xalaat nit ki kay def dafa am lu mu war a laytaayoo muy xam xam googu moo koy euh, dëgëral ba bu xalaatee mu mën a jariñoo xalaat kon il faut que ki xalaat dafa war a jiital xam-xam ci la nga xamante ni moom lay xalaat nga indil ñu tamit xéewal yi nga xamante ne moom la euh, euh, nga indil ñu tamit xalaat ci xéewali yàlla yi maanaam lan la mën a indil jaam bi la mën a indil jaam bi nga wax ñu ne day delloo jaam bi ci mu bëgg boroomam ndax comme ni nga ko joxee ci ay misaal gis nit koo xamante léegi-léegi dafay mel ni yàlla daf koo xéewalewut te fekk ne yàlla defal na ko xéewal goo xamante ne xëy na da koo gisut comme ni nga xamante ni moom la ñëwee ci xadis yonte bi salaa alayhi wa sallam ci xéewal yooyu muy wax ci jaam bi am na ci xéewal yoo xamante ni dana nekk ci jaam bi du ko xam li feeg daf koo ñàkk saa su ñàkkee xéewal ga rek soo ko xam ne xéewal gi amoon na ko kon loolu tamit euh, wane nga ne xalaat ci xeewal yàlla yi day delloo jaam bi ci mu gën a sopp yàlla gën koo bëgg te it loolu tamit daf ko yóbbee tamit ci muy wattandiku ci mbugali suñ borom yi maanaam muy wattandiku mbugali yàlla yi euh, di ci xalaat day tax mu wattandiku mooy yàlla euh, nga indi ñu ba tey tamit ne ñu xalaat mooy asaasul imaan mooy fondement gëm yàlla ndax fond gëm yàlla yi yi dëgër yépp ci xalaat lay lay lay tegu nit ki bu jekk-jekk rek gëm yàlla te tegu ko ci xalaat bu wér xalaat ci mbindeefi yàlla suñu borom yi ba am ci lu ko lu ko lu ko lu ko wóor kooku ngëm yàlla mën naa bañ a dëgër loolu waaye ki nga xam ne dafay xalaat ci mbindeef yàlla yi kooku ak imaanam moo gën a nekk imaan gu sax gu dëgër euh, wane nga tamit ne xalaat ci jëmmi yàlla ji du loolu moom lañ naan xalaat waaye da ngay xalaat ci li nga xamante ni mooy li nga xamante moom la yàlla sàkk ci biir àdduna ci mbindeefam yi nga ciy dellu di ci xalaat te loolu buñ ko delloo ci alxuraan danañ gis alxuraan di ko junj lu bëree bëri afala yansuruna ila al ibili kayfa xuliqat wa ila samaai kayfa rufiat ci aayaat yu bëri yoo xamante ne nii yàlla daf koy junj pour delloo doomu aadama bi mu xalaat ci li nga xam ne moom la bind pour mën a dëgëral ngëm yàllaam ak euh, bi ci teg mooy nga indi ne nit ki dafa war di xalaat euh, bañ xalaat ci loo xamante ne nii ay yàlla la wala lu koy lu koy indi lu koy lu koy lu koy lu koy yóbbee ci ak mooy yàlla wala luy yóbbee nit ki ci ak noonoo wala ak mbañeel wala luy yóbbu nit ki ci ak bëgg àdduna yooyu yëpp daf nit ki daf koo war a moytandiku ndax lim koy jural du nekk loo xamante ne lu gën lay doon ci moom euh, ci mujj gi nga leeral ne mooy ngën ji jihaad mooy xalaat ci yàlla ci ci fi suñ borom yi mooy jihaad yi nga xamante ni mooy jihaad yi gën a mag nga euh, ndax loolu la muy indi mooy dafay indi leeru xol dafay indi tamit yàqin gu wér ci doomu aadama bi boo xamante ne daf koy tax mu gën a jox borom boromam ak yi nga xamante ne nii moom la ko war a jox ak imaan bi nga xamante ni moom la war a jox boromam kon daal ci loolu mooy li nga xamante ni moom lañ jot a jàngatee ci li nga xam ne oustaz indi na ko ci biir téere bi mu nekk waxtaan woo xam ne wu am solo la di ñaan suñu bopp ak dégg baax di gër bi nga xamante ne ni mooy jàllale waxtaan yi ci daara ji mooy Touba euh, vision bi nga xam ne moo koy jàllale toujours ci euh, xarala yu bees yi di leen gërëm di leen sant di sant mbooloo mi yépp yu fi teew wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëñ Cheikh ci motte bu am solo boobu dañuy ci santaal bu baax sëñ Souleymane Badiane ci waxtaan bu am solo ñu indi leen tey di fukki fan ak juróom-ñeent ci saxu Ramadan. ci thème bu am solo xam naa dañuy jóg ci yenn laaj rek mu ne kii day laaj Mamadou Lamine Diop London mu ne day laaj ndax joxe say organe ginnaawu ni ki faatoo nu ko lislaam gisee alhamdulilah maanaam laaj bi mooy ndax doomu aadama jullit bi sañ na mbiram mën ne bu faatoo ay cëram mën nañ koo jël defal ko keneen kuy dund te soxlawoo wala mu manqué cër booba euh, loolu nag fiq fuqahaaw yi dañoo baaxoo wuute lool rawat na ci nawazil yi masala yi nga xam ne yu xew la yu jamono indi ci boroom xam-xam yi ñu gis ne lu du dagan ndax doomu aadama ay cëram moomu ko ba di ko maye yàlla mi ko bind defal ko cër yi mu ko defal nit ki amul sañ-sañu di dindi ay cëram yàlla da ko sàmmloo bakkanam euh, muy dund sax sañu la faat bakkanam ko defee def na bu mag lislaam dafa xaraamat loolu kon ci dundam sañu jël benn cër ki moom di ko may kenn naka noonu bu faatoo ndax doomu aadama bu faatoo it dafa am worma ju toll ju niroog jam amoon ci bi muy dund am na ñuy wax loolu waaye nag am na ci borom xam-xam yi euh, fuqahaw yi yittewoo nawaasil yi ñu wax ne loolu lu dagan la te dagan gi it waxuñ ko rek waaye dañ ko wutal delluwaay te mooy li gën a leer mooy li gën a wér ndax ku ne xam na ne euh, jigéen ji soow mi muy nàmpal doomam lu ko yàlla bindal la lu yàlla def ci moom la du lu wuti fenn du lu defal bopp it te sañ naa nàmpale sañ naa nàmpal doomu kaneen jaanam du ca fayeeku dara da koy maye noonu waaye sañ naa sax fayu ñu fay ko ngir mu nàmpal kaneen kon am na sañ-sañu ay cëram sañ sukkandikoo ba daganal lu mel ni maye dret naka noonu maye cër nit ki bi muy dund cër boo xam ne mën naa dañ ci moom te du jël bàkkanam du ko yóbbee lor ju metti mu jël ko may ko keneen ñu ne loolu dagan na euh, dagan na it bu faatoo mu bàttali ne nañ ko defal loolu nañ jël ay cëram yi nga xam ne ñeneen ñuy dund soxla woon nañ ko ñu ñu fal leen ko te loolu nag euh, day am ay charte day am ay charte yu tax muy dagan dañu wax ne dafa am ci cëru nit cër yi nga xam ne euh, ak ak ak ndonu ci lay bàyyi ko nga xam day jeexatal ci ci wàllu askan ci jur cër yi nga xam ne mooy tax nga mën a jur cër yooyu moom du dagan nga di ko may kenn kooko di jur askan woo xam day mel ni dëgg-dëgg ci sa askan yow la bokk te bu dee ci as askan la bokk war a donnante yow ci wàllu sëy ak xaraamante war a am diggante mook sa njaboot ak yeneen mbir yoo xam daal day indi ay lënt ak i njaxas moo tax ñu ne bépp xam ne moom Euh, day day jeexital ci wàllu askan kenn du ko maye loolu benn la ñaareel bi mooy kii maye cër faw mu doon mukallaf nit koo xam ne mag la ku xàmmee ku ràññeeku ñor waaye safihu bi wala ki xelam xaw a defe wala ndaw li ràññeegut wala mag mi xelam dem sañu ko kon ki koy def day fekk mi ngi ànd ak xelam mi ngi ànd ak sagoom def ko ci coobare boppam sañ naa maye cëram moo xam bi muy faatu bi muy dund wala mu bàttalee bu faatoo ñu jël cëram yooyu defal ko keneen kuy dund ku ko soxloo beneen chart bi beneen charte bi ñu mooy ñetteel bi moo ci des ka muy may cëram na doon koo xam ne ku sharia ñoŋal deretam la ku ku sharia bay ngir muy dund la waaye koo xam ne sharia dafa neenal deretam ni ki ab muxaarib yéeféer boo xam ne dafa noonu jullit ñi di xeex ak ñoom nga xam jullit ñi dañoo nekk ci xaalaat xeex ak moom bu ko jekkoon dañ koy rey kooku kenn du ko may cër euh, yaa xam ci say dund la wala nga bàttali ko gannaaw boo faatoo loolu mu nekkee wala ci xam sax du am nañ jàmm ak jullit ñi sequñu benn xeex boo xam ne diineeg pas-pas ko lal nga mayee say cër ne boo faatoo euh, sa organes yi mën nañ koo jël defal ko ñeneen ñu ko soxloo moo xam ay jullit lañ wala sax doonuñu ay jullit waaye doonuñu rek ay muxaarib loola lu dagan la lii mooy li gën a leer mooy li gën a wér ci wax waxi borom xam-xam yi te fañ ko delloo xiyaas ko fa it mooy sañ gi doomu aadama sañ a maye meewam te meewam it yàlla mi ko defal ay cëram nga xam ne mën mëntu wuti cër yi na yàlla moo ko defal meew moomu ci biiram mënu ko mënu koo wuti fenn wallahu aalam jërëjëf suñ suñ Souleymane ci tontu boobu day mel ni tontuwaale nga sax yeneen ñaar laaj ci toppoon. Mm. ma la ñëw ci ñetteel bi rek. Mm. mun a ginnaaw bi mu ko defee ba noppi ndax àllaaxira mën na faa am dara lu ko manqué. waaw bu fekkee lu dagan la te jàpp nañ ne lu dagan la ndax ñi wax ne dagan na wutal nañ ko tegtal bu leer boo xam ne mënee su koo dindi euh, loola du ko wàññi dara du ko wàññi dara ëllëg yowmal qiyaam bal safaan bi kay. mën na caa jëlee tiyaabo ju rëy mën na koo jural yiw ak njariñ lu rëy rëy ëllëg yowmal xiyaam ndax ma ngay sowee beneen bakkan bu doon dund te soxla woo cër booba lool mën naa am sax bu ko amul woon faatu may gam ko koy may mooy tax mu mën a continuer di dund wallahu alam jërëjëf sëñ Souleymane ci tontu bu am solo boobu kii day laaj lan mooy barsaq lan mooy barsaq barzaq euh, barzaq euh, baat bi li muy tekki baatu araab la ñëw na ci alquran euh, mooy mooy ab baraas loo xam ne day day xaajale diggante ñaari mbir masalan alquran wax ne yàlla marajal baxrayni fekk ñaari géej géej gi wax xàtt saf xorom géej gi am ndox mu neex am na ci diggante bi benn barzaq benn baraas boo xam ne moo leen taqale ñaari ndox yi di laalante te duñ duggante dangay mën a taxaw fii tànk ci ndox mu neex mi lu matul meetar nga tànq fee muy ndox mu naqari bi kon barsax mooy li li diggalee diggante ay mbir euh, barsax nag xam naa kii laaj ak fi ñu koy jëfandikoo fu bari mooy diggale diggante àdduna ak àllaaxira nit ki bu génnee àdduna jaarwaay bi muy jaar ba yàlla taxawal bés pénc ci àtte ay jaamam ñay dem aljana dem yàlla nañ ca bokk ñay dem safaan ba dem diggante boobu moom lañu ñu tuddee ci mutasawwifuun yi ak nit yàlla yi am nañ ci yeneen déggin ak yeneen leeral yoo xam ne yu gën a xóot la waaye jàpp naa ne aji laaj yi foofu lay laajee maanaam jaaruwaay bi nga xam ne doomu aadama dana fi jaar gannaaw bam mu wuy jee boromam te yowmal qiyaam taal ci silkul jawaahir Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu mi ngi nettali foofu di wax ne nit dafa am ay jaaruwaay dafa am ay maraaxil yoo xam ne ci lay dund ba mu nekkee ci biiru yaayam ñëwagul ci àdduna loolu benn marxala la euh, ñëw na ci àdduna fekk àdduna gën a yaatu fuuf biirub yaayam ëpp ko ay bagage fuuf nga xam ne la mu doon dundee ak fa mu nekkoon ku ne ko woon boo ñëwee ci àdduna yaatuwaay bu toll nii nga fi fekk lu toll nii ngay soxlawoo du ko gëm euh, ni mu amee mbetteel bi ñëw jaadu na ci gën gee yaatoo gën gee bari ay bagaas ay bëgg-bëgg mag ay man-manam lépp yokku macha allah ak xalaax ba ruuxam amoon ak yaramam foofa ni mu wuteeg bi ci àdduna bu ñu demee barzaq mbetteel gu toll noonu lañ fiy fekkaat maanaam ki jugee àdduna dem barzaq ni mu fekkee woon àdduna gën koo yaatoo biirum ndayam noonu lay fekkee barzaq gën a yaatoo àdduna noonu lay fekkee ay bëgg-bëgg mag ay man-manam mag léppam day gën a rëy day gën a yaatu ruuxam am beneen alaaqa ak yaramam bu gën a rëy gën a matale bu bi bii muy dund fii ci àdduna loolu mooy doon ñetteelu marxalaam moo tax ñi jàpp ne ku faatu ñu ne nañ ko yóbbu ci kër gu mujj ga loolu njuumte la barzax du kër gu mujj foofu jaaruwaay la dañ fay jàllaat dem ca kër gu mujj ga mooy aljana walla safara waaye bu jógee barzax it gannaaw ba ñu fekkee mbetteel ndax gën naa yaatu àdduna gën koo rëy bëgg-bëgg yi gën a rëy euh, bu ñu jógee barsax dem ëllëg yowmal xiyaam kasaalika mbetteel gu ni mel gu ni raw lañ fay fekkaat fekkaat ruuxu amaat ak yaram baneen alaaxa bu gën a rëy moo tax loolu dañ ciy jàng bu ñu lay misaal aljana di la wax ay rek ñetti junni gër da ngay xalaat ne loolu lu ko doomu aadama doyee waaye boo fàttalikoo ka nekkoon ci biiru baayam ku ne ko woon ñetti kuddiy ceeb da ko am àdduna rek danaan loolu lu ma koy doyee ndax loolu day rëy ci moom kon aljana xéwale la muy rëy rëy bu sa bu boobaa doomu aadama alaaqa bi ruuxam am ak yaramam ak ay bëgg-bëgg mag man-manamam mooy toll loola allahu alam jërëjëf sëñ Souleymane ci tontu bu am solo boobu kii day laaj lan la jullit bi war di xalaat buy julli waaw jullit bi buy julli dafa war a teewlu màggug yàlla xam ne moom ba mu taxawee ne allahu akbar rek loola bu doon ab courant la coupé na diggante mook àdduna dog na diggante mook àdduna léegi dafa war a teewlu màggug yàlla ànd ak loolu ba sëlmal euh, bu ko neexee it la gën a jàppandi ci moom ndax loolu du ñëpp ko man du ci ñëpp la yomb muy teewlu li muy wax bii wax allahu akbar mu xam allahu akbar mooy lan di teewlu maanaam moom ngi jàng faatiha di teewlu faatiha ji lan la yàlla di wax ci alquran ji muy jàng saar wi muy jàng lan lay wax ba muy rot naan allahu akbar muy teewlu maanaam wax jooju ba muy sàbbal subhaana rabbiyal azim luy loolu baat yooyu muy teewlu maanaam ba muy siggi ci rukoo it la muy wax sami allahu liman hamida muy teewlu maanaam mi toppee ko noonu ba ba mu naan assalaamu aleykum di teewlu loolu muy wax julli waaw loolu nag moom tabarkalla macha allah dëgg dëgg mbir ma it nag mooy muy teewlu màggu yàlla subhaanahu wa taala am yëg-yëgu ne mi ngi teew ci kanam boromam kon foofu bu ñu waxee teewlu ci julli ah, foofu foofu foofu la foofu la jëm wallahu alam jërëjëf sëñ Souleymane ci tontu bu am solo boobu sëñ Matar Diatta lay laaj ndax xalaat yàq na julli ah, déedéet xalaat ci mbiri àdduna ak yu amul solo ci sharia yàqul julli waaye dana wàññi tiyaabay julli lii mbir tey mbir mooy boo kaabare xarmal ba ba ngay sëlmal diggante yi nga xam ne sa xalaat yëpp ci àdduna la jëm jëmul ci daraay julli gi jëmul ci daraay yàlla yooya ak neen la doo ca jëlee dara ci tiyaaba moo tax am na kuy julli ba sëlmal sharia du ko wax dara de du ne ko demal julliwaat ndax julli na defut lu yàq julli waaye julli ko du ca am dara du ca am dara ndax teewluwut ca yonent bi ku julli ba noppi malaaka yi taxañ julli ga dóor ko ko ci bopp ne ko sa jullee ngi noonu ndax amuñ ci soxla kon lu baaxul du yàq julli waaye musiba la yàlla nañu ci yàlla musal jërëjëf sëñ Souleymane ci tontu bu am solo boobu kii dim day laaj naka la nit ki mën a def ba du xalaat xalaat bu ñaaw waaw di xalaat xalaat bu ñaaw xam nga xel dafa dafa am doole te sob te gaaw léeg-léeg mu jëmee borom foo xam ne du lu ko gënal du lu ko neex jëm ci mbir yu doy yu ñaaw am na ko mas a laaj loolu yonent bi sallallahu alayhi mi ngi ànd ak ak jaaxle ci xalaatam yu yëm koy jëmale waaye yonent dafa dalal xelam xamal ko ne yow lii ngay dund mooy dëgg-dëgg gëm yàlla ndax bu gëm yàlla nekkuloon fi yow lii ngay xalaat daf lay neex ak lu mu bon bon wala du la jaaxal du la def benn problème amaa ragal gi mu lay ragal ngay jéem a wattandiku kem sa kàttan loolu mooy war a ne ku gëm yàlla nga loolu nag feebar la feebar la loolu was waswasatu seytaan la seytaan mooy jëmee xelum doomu aadama ci yu mel noonu léeg-léeg nit ki moo ci dimbale seytaane ba seytaane jekku ko di ko jëmale xalaat yooyu moo tax bu la dikkee di dimbale mooy audu billahi min asheytaani rajim di muslu seytaane waaye di bëri looy teewlu di xalaat yàlla nag ba ba ba ba tàmm ko loolu dana la musal ci yeneen xalaat yi nga xam day jëm ci safaan waaye nag xalaat yooyu ñu xam ne feeg mi ngi lay dikkal di la not noonu defoo ko ci sa jubluwaay amoo ca benn bàkkaar wallahu aalam jërëjëf sëñ Souleymane ci tontu bu am solo boobu suñ fàllu ñang day laaj naa moom extérieur la féete ban xam-xam la saaba yi utiliser ba dajale alquran ci ordre bi ñu ko xamee alquranul karim waaw alquran dañuy jàng ci taarix ne ñu ko dajale ci jamonoy sayyiduna abu bakar ni siddiq radiallahu anhu waaye loolu mat a leeral la alquran mi ngi njëkk a dajee ci dënnub yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa yonent bi wuy juwul boroomam lu dul ay jullit yu bari dajale nañu alquran ci seen dënn yonent bi muy faatu booba jullit yu bari mokkal nañu alquran donte bëriwuñ lool lool nag du bëri gu ñuy yéem waaye am na ci saxaaba yu ñu wattu woon alquran mu dajee ci seen dënn am na ñoo xam ne dañ koo bind nga xam ne bi yonentu faatu boobu alquran lépp mu ngi ci ay dënn mokkal nañ ko waaye alquran lépp bind nañ ko ci ay bindukaay denc donte dajaloowu Seydina Abubakar lam def mooy dajale ñi ñi nga xam ne ku mel ne Zeyd Saabit gënoon na ràññeeku ci ñi man alquran boole ko ñeneen benn daj na boo xam ne ñooy xool alquran ji ñu wattu woon ci dënn yi yiñ bindoon mu tàqali ko ñu dajale lépp bindu ko mu doon benn téere nga xam dañ koy mën a yëkkati ne mushaf kaamil bàyyi ni li ñu tuddee mushaf kaamil amul woon saaba yi lañ wattu woon mokkal ko ak loo xam ne bindoon nañ ko denc booba yonentu ba yonen yonentoog bi waaye ànd ak nag ñu ànd ak dogu ak dëggu ba balaa ñuy bind dara rek dañuy am yaqin ci ne lii alquran la ndax diw mokkal na ko diw mokkal na ko ñoom ñëpp ci yonent lañ ko jële wala diw bind na ko diw bind na ko mu am ay seede yu dëgër looloo tax alquran ñëw ci anam goo xam ne mu mutawaatir la xelum doomu aadama mënta nangu ne am na benn xaraf bu ci manqué wala bu ci yokk nii la ko yàlla wàcce woon ci yonent bi nii la ci xeetu jotee noonu lañ koy jàngee ba tey loolu nag jagle la euh, ndax yeneen téere ya ko jiitu woon mbokki téereem ya bàyyi ko woon asamaan amul ci bu am loolu amul ci beneen téere boo xam ne dajaloo na ci dundub ab yonantam wala ci gannaawam yeneen téere yëpp seen yonantu jiit nañ ay siècle ñu doon ko commencé xalaata dajale ko bind fekk sànku bu yàgg wala wax la jërëjëf sëñ Souleymane ci tontu bu am solo boobu kii day laaj ba tey ban aaya wala ban saar moo mujj wàcc ci alxuraan. Ah, bu dee saar la saar loo xam ne saar wu mat la mujj wàcc ci alxuraan mooy suuratu nasr ida jaa nasrullahi wal fath wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja fa sabbix bi xamdi rabbika wastaxfiru innahu kaana tawaaba ñu bari dañuy wax alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum lislaama diina waaye loolu du dëgg moo du moo mujj wàcc ci alquran bi mu wàccee nag amaatut luy ñëwaat di indi yeneen àtte yu bees loolu la muy wane mooy matuk diine ji waaye dëgg-dëgg la mujj wàcc ci alquran ci li gën a wér ci waxi borom xam-xam yi fànn bi mooy wattaqu yawman turjauna fihi ila allah baaye ba jeex wallahu alam jërëjëf sëñ Souleymane ci tontu bu am solo boobu ba tey kii day laaj rek li esprit critique fan la yem si diine ndax am na fi place wala amu ko fi. lan lan. esprit critique. lu ah, naqdu waaw kon euh, euh, naqdu daal bu fekkee diine dafa am ay sawaabit diine dafa am ay sawaabit yoo xam ne kenn du ko laal. nii la ko yàlla bëggee yonent bi jàngalee ko ni noonu lañ koy bàyyi ba ilaa yawmi diin yooyu kenn du ko laal. kenn sañu koo naqdu ndax naq naqdu ko mooy mooy du yàlla wala yonente bi sallallahu alayhi loolu mën naa génne nit ci diine am yoo xam ne nag euh, ay ay déggin la ay déggin ay moo moo moo waral ay masaayil yu bare yoo xam ne boroom xam-xam yi dañ ciy wuute te wuute ba doon luñ nangu te loolu lu lu lu feeñoon la lu commencé woon la ci jamono yonente sallallahu alayhi maanaam ay ay saxaabaam di wuute ci masala dem leen barab sàngam ñuy dem muy leen bu kenn julli tàkkusaan te yéegoo ñu dem ba ca yoon julli jot am ñu ne ba mu ñuy wax loolu dafa bëggoon ñu ñu gaaw rek waaye julli kenn du ko yéex julli jot na dañuy julli léegi door a continuer ñenn ñee déedéet ñun daal lu mën a xew duñ julli te yéeguñ ndax loolu la ñu waxoon pourtant bañ demee daf leen a bàyyi ñoom ñaar ñëpp ña julli woon alhamdulilah rabbil alamin ñi ñëw ba ci doonte waxtu yu jeex ñu door a julli alhamdulilah rabbil alamin Euh, loolu li ñuy jàngal mooy wuute ci ay mbir ñu bari dañ yaakaar ne dëgg du limu alxaqu laa yata'addad fu wuute amee rek kenn wax dëgg kenn ki daa juum déedéet loolu njuumte la wuute danaa am ñëpp nekk ci dëgg kom léeg-léeg wuute am way wuute ñëpp ci njuumte lañ nekk ci safaat lañ nekk kon daal bu ma bëggee dellu si tënk ci laaj boobu mooy diine am na ay sawaabitam yoo xam ne yu sax la kenn du ko laal kenn sañu cee naqdu dara ndax naqdu ko mooy yàlla yonent bi wala sikk sàkk ci yàlla yonent am na yoo xam ne nag euh, ay dégg na ko fi indi ak ay gis-gis yooya naqdu ko dara dara nekkut ci li am solo nag mooy jullit bi ànd ak ixlaas naqduwul ngir daaneel wala ngir yàqate wala waaye na dafay naqdu ngir bëgg a defar ngir bëgg a tabax loolu daal mooy mooy li am solo la wallahu a'lam jërëjëf sëñ Souleymane ci tontu yu am solo yooyu ñu lay sant bu baax di la gërëm mm-hmm. la ñaanal baax su borom yàggale fi te wéral la te barkeel xam-xam bi di siyaar baax suñu seex ja doon modéré di ko ñaanal moom tamit tawfeex ak taysir di ñaan suñu borom yàggal ñu fi loolu te wéral ñu dañuy ñëw rek ci programme soof bi incha allah rabbi di ñaar fukki fan ci saxu ramadan mu nekk ab débat boo xam ne ci lalatu xadar la jëm ñu koy am nag muy suñu Seexuna Mbàkke ibnu suñu Murtala Fàllilu ak suñu Mohamed Jatara modérateur bi nag suñu Murtala lay lay doon dañuy sant bu baax ñi nga xam ne chaîne yi nga xam ne yoon jàllale waxtaan fii ci Daaray Kaamil di Touba Vision